këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje duubal na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi told your not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up a I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry internet yi jàkkaarloo ak ñun ci luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare tey nag ñoo fii ah, salle bi lu mu tuddee sax Excaf seet si ki nga moom mooy Ousseynou mu war a bëre ak Thiatou Fora samedi 24 décembre ci 2022 bi ñu ci ànd ak waa Yaram Art Events grand combat bu ñu Tafambar ak ki nga xamante ne moom mooy Gamou Gueye mu demoon voyage ñëw ñëw seen waxtaan ak moom ci combat bi préparation bi ak li nga xamante ne moom la uti jiwoon ndax dégg nañ ko fi Espagne dégg nañ ko fi Maroc dañ leen nuyu bàyyi la mbokk internet yëpp su ko defee ñu yaatal ci combat bi nga xam ne moom ngay waajal le 24 incha allah. waaw salaamaaleykum maa ngi sant yàlla ba pare di julli si yonente bi di sant sama yaay di santaat sama yaay bu baax a baax a baax di sant monde entier di nuyu tamit promoteur bi xam nga di sant waa Yaram Art ñëpp wax ne tey di nuyu Idi Bakary Lat Diop xam nga di nuyu yow Lamine di nuyu tamit sama waa dëkk muy waa Yaraax nga xamante ne fa laa juddoo yeroo fa màggee fa waa di nuyu képp kuy doom Yarax maa lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di leen wax ne daal seen doom Eau Chaude bu Yarax ñëw na di leen tàllal loxo yéen ñëpp képp kuy doom yaraax rek xëy na biñ ñëbbiseeg léegi mënuñu dugg fépp di nuyoo ak di wax parce que dafa am si lu luñ jëm loo xam ne dafa am importance ba buñ ñëwee dañoo ñëw rek nekk ci entraînement yi waa di gën a nuyu rek suñu jigéen ñi fa nekk ak suñu rakk suñu mag yi ku si mel nii waa Amazone de Hann bel xam nga di jiital ci nuyoo bi mam Mami Diaw seen présidente Ada Ndiaye Jobe Ndiaye ñoom Caama ñoom Kumbis ku ci mel ni euh, tey jii nii ñoom xam nga Amazone bi yëpp daal xam nga su ma limee rek damay juum quoi ñoom ñëpp xale yi fa nekk ak mag yi xam nga ak suma gars yi tam bu baax a baax a baax ñu sama mafia booy koñ yi xam nga yëpp di leen woo quoi ñoom Omar Sey waa booy Guèye ñoom Serif xam nga booy mbalaaw yeeg booy fila tournée yi ñëpp maa leen woo ci combat bi di wax ne nag ñëpp waajal mobiliser xam nga ñëw yàlla defal ñu ndam quoi xam nga di nuyu tamit ku mel ni suma doomu ndey suma xarit ñëpp xam nañ ko Serigne Diouf di ko nuyu baax xam nga di nuyu tamit ku si mel ni baay Seex di ko jaale tamit Ramdaan bi nga xamante ne suñu xarit la ñun ñëpp surtout yow Lamine Ramdaan ñëpp ku ko xam-xam kook yow ak Baye Seex daanu leen gëj di déggante mm. waaw mu nekk tamit ku baax quoi am tam xarit bu baax muy Baye seex mu taxawu ko ci lépp waaw di ko ko jaale bu baax a baax Baye seex moom ne nit ku baax la man dama naan sama combat bi sax combat am la ndax bi combat bi taxee ba léegi ciy sonn lu nekk la ciy def di ko nuyu bu baax a baax depuis états mhm. ak papaam ak yaayam ak famem yëpp mhm. waaw di ko jaalewaat tam Ramdan bu baax a baax baax ndax sonn na trop ci feebaram yow yow Lamine xam nga ci dara amaan sax yow li nga xam ñun xamuñu ko ndax yow le temps yaa ngi si doon nekk xëy na jaalale woo ko woon mais xamoon nga lépp nu mu demee quoi waaw di la ci tamit masaw tam bu baax a baax ndax xamoon nañ sa diggante ak moom bañ naa ba bu ñu waxee nga ne baay Cheikh bu raam daan raam daan bu Lamine waaw xam nga di nuyu tamit fi ma jaar Espagne ku si ñoom Tafa Thiabu xam nga ñoom Ndiogu Laax di leen woo tam ñoom ñëpp si combat mooy diaspora bi ko Ndiogu Laax Kader Fall sonn na ci combat bi Idi ne sama goro ba Italie séeri asuga yi bi làmb ji taxawee ba léegi mu ngi si Youssou Ama xam nga aboogi jaal Baye Fall bi ñoom Maasa ñoom ñëpp jo ak ñoom Seyni Ndiaye Alsane Ndiaye xam nga ñoom jam ñoom Baye Wacca xam nga waa Italie tam ñëpp quoi di leen woo ci combat bi waa Casablanca tam bi ma mujjee quoi muy ñoom kalaamu GP Adama Touré sama nijaay Ngoone traiteur bu nekk Casablanca nga xamante ne ko bëgg a lekk lu neex da ngay dem si Ngoone traiteur Cheikh Adama Touré Ndeye Debbo Ndiaye Cheikh kalaamu GP Moussa ndoy suma mag di woo daal monde ko waa di wax ne daal seen doom liggéey na ñëw na waaw di waajal nag bisam quoi. le 24 waaw le 24 décembre. seen doom liggéey nii ñëw na fan fan nga dem. waaw damay dama dem fii laa jóge avant combat bi quoi dama bëggoon dem Thaïlande mais loolu ci sama côté business la quoi. bi may lijjantee loolu ba loolu sotti foog ci combat bi taxaw quoi léegi ñu def ko benn voyage ci laa jóge fii Dakar dem Madrid jógee Madrid dem Thaïlande. après soo ko ñëw Casablanca quoi. Mhm. Casablanca presque côté gàmmu ga laa fa ñëw. waaw waaw yooyu ay business la woon quoi du woon wàllu làmb quoi. Mhm. loolu sama wàllu business la. Mhm. xam nga ba may dem sax am na ñoo xam ne aéroport Sénégal sax ma téye naam da ngay daw ak yu kenn xamul man mbër laa. sama leader laa quoi mbër laa. kuy daw boo gisee da koy xàmmee quoi. est-ce que euh, Sénégal mën nañ la téye te am ay kër yu leer. waaw ñoom dañ ñëw dañ ne ma yow instant bii nii presque une semaine nga war a def xam nga te si norme mooy yow transit na nga nga transit mooy da nga fa war a jaar jàll xam nga te loolu ay risque la quoi si laa lañ génnelee sama contrat combat xam nga ba lañ lee contrant combat bi nag ñu xool ko lii contrant bi xam ne kii sportif la quoi soo mu bàyyee ma dem. xam nga ma demee tam dox sama mission ba mu jeex ma na ñëw Casablanca. nekk fa di préparé ba Moussa Ndoye ñëw tam fekk si si ma fa quoi. Mm-hmm. ñu àggale maag moom. préparation foofu nan nan la doon demee. waaw préparation foofu moom deux séances lañ doon def bu ñu xëyee dañuy dem euh, salle bu ngoonee ñu ñu dem géej par saa yi ñu xëy dem defi boxe ngoon ñu dem géej xam nga dañ koy mixé quoi mais deux séances lépp lay doon soit dañuy bàyyi boxe bi def ko musculation wala ñu def boxe bàyyi musculation bi waaw mais itam dinañ dem géej tamit ak di def tamit ay aspect technique ak suñu benn mag suñu benn ancien mbëgg mooy saa yaraax boo yaraax numéro un un quoi ñëpp xam nañ ko muy champion bu baax baax Bathie Mbaye nekk Casablanca di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak tawfeex foofu mu nekk sonn trop nag si combat bi ci préparation physique bi ak technique bi lépp lépp moo koy yoroon quoi muy dagg yëteem bi def léppam boo yaraax numéro un. Ah. côté exercice ndax doon ngeen def euh, foofu loo xamante ne du ngeen ko def fii Sénégal. waaw waaw waaw foofu moom presque li ñuy liggéey Sénégal yëpp ñoo ngi ko fa liggéey quoi mais tam am na ay système entraînement yoo xamante ne. wax dëgg yàlla man du wax gis fii ñu koy def Sénégal te te moom xam na ko mu nekk ci boppam quoi mu ngi làqatu woon ak ñun dañu ko def loo waaw suñu kër mosuma ko def fii mosuma gis tamit benn mbëg di entraîné def ko euh, du kii musculation wala géej non géej ay système géej la yoo ah, xamante ne loolu système naar la yu doy waar la xam nga waaw xam nga làmb mbaa ah si am naa parce que dara sit sit yëpp nekkul da nga daanu ba pare soo ko def sit bu ci nekk moom àndul ak daanu balaa nga koo def yow kay da ngay daan waajur soog nga am site. Hmm. xam nga te ay site yu compliqué la boo xoolee boo defee sax euh, trois appuis daanu nga xam nga te làmb quatre ngay daanoo kon xam nga loolu moom boo ko maîtriser rek soo ñëwee ci làmb day gën a yombal euh, avantage la waa parce que làmb boobu quatre ngay soo ko daan tefee si si yooyu ñi boo defee trois da ngay daanu. Hmm. xam nga deux da ngay ne mais fu troisième bi loxo bi tegee rek mooy site la quoi. kon taxoon nga dem Maroc daal. rëccu dara non non non non rëccu waaw rëccu ma ci dara moom wax dëgg yàlla am naa li ma fa doon bu tax te bi may dem ne ñi gis nañ ma yow signature bu njëkk bi yaa ngi fa woon nga ma gis nga ma biñ signature ak tey xam nga ne su ma demoon fu ma tëdd di nelaw wala may lekk naa na ko jóg su ma ñëwee rek boo xoolee sama kanam lay njëkk a xam nga mais bu ma xoolee sama yaram nga xam ne lépp dama liggéey loo xamante ne man maa ko moom hmm. waaw dama liggéey doole bu wóor boo xamante ne incha allah damay ñëw pour le 24 xam nga def ndam quoi yàlla nag moo yor ndam ñu ngi ñaan yàlla may ñun tam te tam dafa am benn wax boo wax ci scientifique bu am solo boo xam te ne chaque jour bi fi jógee ba ni ma ñëwee dama koy nelawaale di ko yeewu mooy est-ce que xam nga lu lay xaar ci ci combat bi loolu rek sas la waaw wax bu àgg na dof ko moom waaw waaw est-ce que xam nga li lay xaar ci combat bi loolu wax la quoi hmm. moo tax chaque jour bi ma demee ba chaque jour rek sama xel day nekk si loolu lu ma liggéey rek lu mu métti métti su ma xalaatee loolu rek damay gën a dolli quoi. Hmm. te te li ma waxoon tam ci laa nekk làmb moom moo doy waar xam nga tëgg di quoi léeg si chaque jour nit daan ne moo moo ko mën ñu xam nga nit nit daan la it ñëpp xam ki yaa ko mën mu daan la ay ay nit nag dinañ sukkandiku ci loolu ba jël sa avance. jàpp na exemple yow. noo neex noo neex nga quoi xam nga ndax euh, amaana ki la daan moom day jàpp na ne moom mun kooku te kooku bokkul sax ci làmb waaw xam nga mais nag li ñuy wax rek Euh, li si kanam raw li bët quoi. li si kanam raw li bët nga war a bëre caatu fora moom tamit boobu ba léegi mu nekk ci ku ne xam na ni tey Siteu caatu fora bokk na ci ñi mu jëloon yóbbu leen januar ñu concentré foofu lëlu préparé seen combat côté contact ku ne xam na ne moom amuñu sikki sàkk ni contact na ndax moom moo doon contact ak Siteu côté contact bi yaakaaroon mu ëpp la ci avantage bu ngeen demee ci bëre bu yàgg. waaw non gis mu ëpp ma ci avantage quoi parce que man bi ma nekkee maa ngi euh, méthode yi ma doon liggéey presque lépp endurance la lépp endurance la xol laa ëpp ëpp lu ma liggéey sax te ay yëkkati ay poids bu diis ak yëkkati lu di yenn lu diis boo xoolee li ma doon liggéey géej sax moo ëpp li may liggéey musculation te li ma doon travail géej yëpp xol la te depuis Moussa Ndoye ñëw ba ni mu fa jógee tamit si loolu lañ nekkoon si jaxasoo lañ nekkoon maag moom jaxasoo mbëkkante chaque instant mbëkkante mbëkkante mbëkkante. kon Moussa Ndoye am na lu mu yokk ci. waaw Moussa Ndoye am na lu mu si yokk te Moussa Ndoye du poids lourd la du poids léger. ku mën a di bëgg moom di bëgg moom di bëgg moom di bëgg moom xam nga saa waay nañu wax dëgg nag boo ñëwee nga daje tamit benn yenn yenn booy ah boog ñu la mën indil benn problème. yaa ngi dajeeg booy boo xamante ne ak koo mënti doon bu arbitre sifflé day xeex ak yow côté xeex bi ndax liggéey nga. waaw waaw côté xeex bi bàyyi nañ ci xel bu baax moom nee na day duma day xeex day nangam sàng mais man maa ngi koy xaar te xam ne moom lépp lu mu indi incha allah dina ko fekk mm-hmm. lu mu indi rek dina ko fekk quoi mm-hmm. waaw te man moom li ma pare li ma gëm moo nekk si man mooy bu ñu xeexee maa mën bu ñu bëree maa mën incha allah yaa mën jaatu jaatu kii foofu bu ñu xeexee maa mën suñu bëree maa mën yaa dàq bëre maa dàq xeex maa xeex ëpp doole man ëpp man lépp ñeme lu métti. maa gën a ñeme lu métti. kon doo moroomam daal. bokkuñu Lamine. billaahi te le 24 dinaa di nga xam li ma la wax nii dinaa ko confirmé ñëpp ñëpp di gis bokkuñu quoi wax dëgg yàlla. kon suuf caari xam naa loolu moom jàmbaar la moo tax combat bi di neex moom jàmbaar la am na fit am na sañ-sañ xam nga te xam naa ne bëgg na bis bi te am na te am te amit am na lu mu gëm quoi. bu arbitre sifflee mu tàkk sa kaw bu tàkkee sama kaw. fa la combat bi dem. kon du ko defati. du ko defati bu booy bi mu taax sama kaw dañ koy lëng ci sens yi yóbbu waaw booy mu taax sama kaw dañ koy lëng yóbbu bu bu taxawee tam di xaar day gën a ñaaw si moom. Hmm. waaw kon du ngeen bëri combat bu yàgg daal. non parce que doo fi nekk di def ay xaar. non ay xaar doo am ay xaar doo am bu booy bi ci kawam lay dox doo ko ba mu tëddal boo xam. ma jéggi ko dem sama yoon. boobu pare na de tarki naa bu xees. ay combat yooyu. fekk naa bu xees pare la. xare moom neen dafa ñeme lu métti rek kay. combat bi xare ba waaw ay combat teg sax ay ay lalanti di yoot di foo jàpp foo indi yoog non hmm. ba dag la. côté mo mobilisation gis nañ euh, Sodou bu njëkk bu doon jóg yaraax kenn du des ah euh, kenn des entre guillemets mais léegi dañu gis ni affaire xaw na wàññeeku lan moo tax. difficulté yi la wala lu au dafa amul ñu ko jàppale ci ay biir lan moo tax tey mobilisation bi doon gis mu xaw a waaw mobilisation yi boo xoolee xaw na sooxe mais boo xoolee combat bii passé dem nga stade quoi mbëg yi fa nekkoon kenn gënu ma fa mobiliser sama combat bii passé nii. mais par exemple itam dañuy am côté jàppale bi ci côté billet yi xam nga côté billet yi boo xoolee sama ñaari nit rek ñoo may jëndal billet Serigne Ndiour ak Serif ah, Serif Assane Laye bu cité Elisabeth. moom tam di ko wàcc combat bu baax a baax moom suma patron la suma sëriñ la sama mag la suma lépp daf may jàppale quoi Serif Assane laay Serigne Ndeye Assou borom cité Elisabeth xam nga borom karama mooy restaurant bi nga ma fekk moom moo ko moom quoi mooy Serif Assane laay Serigne Ndeye Assou tam ku baax la day jàpp sama combat di woo tam waa cité Elisabeth bi yëpp xam nga ku seme ñoom papa mat force ñoom zo euro ñoom vito xam nga waaw ñoo waa kele minute ba ba tam ñëpp quoi su ma limee rek damay juum di woo ñoom ñëpp ci combat di wax na daal côté mobilisation bi maa ngi ko teg ci loxo Amazon Ndeye Rax na ànd belleer kon kon kon le 24 di nga gis dinañ gis beneen. incha allah dinañ gis beneen mobilisation Ada Ndiaye mu ngi si ak ñoom Mami jaw comme ni ma la ko waxee rek ñoom Kumbis ñoom ñëpp waaw xam nga ñu ngi ci affaire bi ñu ngi ci wàccaay gi quoi. waaw ñoom Malal jaw ñoom ñëpp ñu ngi ci affaire yi xam nga di waay ak sama booy tamit quoi ko su mel ñoom Serif waa Mbalaaw bi ak sama booy mool yi xam nga ñoom Amet waaw ñoom ñëpp booy ñu ngi ci affaire ñu ngi ci wàccaay gi bu baax a baax ana Moussa nga ne Moussa moom mu ngi foofu mu ngi foofu day wut doole waaw mu ngi wut doole de mu ngi di waajal tam moom tamit xam nga xam na li koy xaar dafa am si lu mu jógee. doole rek te du jël combat loolu mooy la. ah waaw mu ngi bëgg na jël combat de xëy na problème mu kese la rek la gars yi jubóowu gë ban moo ci gën a jaadu pour yow. Moussa Ndoye Diène Kaïré moo gën a jaadu wax dëgg yàlla quoi Moussa Ndoye Diène Kaïré moo gën a jaadu Jos nag champion la mbër la bëgg naa ku nekk daan na ku nekk mais xam nga ku tegale cinq cinq défaites te boo xoolee yow ñi ko mujjee daan ñëpp yàlla na raw si làmb tamit benn es soo ñëwee di ko jël. est-ce que ñeme ngeen moom man ngeen aj prix bi ni du du ngeen tolloog moom kase patati patata te Zoss xam naa ne liñ leen fay ci jën liñ leen nar fay ci jën bu ñu leen ko fay ci ngeen kii est que xool leen lu gën a kii rek woyof non non Moussa Ndoye xool lu gën te la fa passe bi nga fay mujj waxtaan nañ ci loo xamante ne nii buñ ko fayee lu jaadu rek dina bëri quoi xam nga buñ ko fayee lu jaadu rek dina bëri loolu amatul sax amatul sax si kasaak yow boo gisee yow gisal promoteur bu ba bëgg rek ñun danañ wañ loxo mu ñëw jël jën kay bëgg ak moom ah jën neex deret gi yëpp di géew bi bokk ci de. ah Moussa Ndoye tamit neex deret bi yëpp géew bi bokk si de wax dëgg yàlla. jën day xeex tax di la xool de. Moussa Ndoye daal moom ki jën mujjee daan nii Moussa Ndoye moo ko duma daan ko. waaw jën nu ko def. waaw jën dafa bëre moom rek duma ko de daa ñëw bëre moom rek. donc daan dafay laa may. te ay te da ci ay yu métti daan ko te te bi comme Moussa Ndoye daan nekkul ci difficulté lépp lépp tout lépp tout benn. yaakaaroo bu arbitre génnee diggante moom Moussa Ndoye mënu ko tegal fii. non mënu ko mënu ko de yow kay instant ci loolu rek yow boo ci taxawee mu taxaw. kon da nga jàpp ne Moussa Ndoye moo mën Diène moo ko mën fuuf moo ko mën ko noonu laaj ko dàq ko bëgg ko xeex xam nga. la Diène la ban sens la am ci combat ak Moussa Ndoye loolu coow làmb la si am. ah coow làmb da a tax di jël combat daan kay war a tax. ah la si am nii rek. ah mënu ko daan. mënu ko daan mooy li ma la wax sànq mbëri par dañ lay yeb ndax benn combat boobu ndax ndax si benn combat la ñuy xool mbër ba ko ci gisee ba ñeme la si mais moom bu ñëwee dina xam ne la woon woon na quoi xëy na gis na deux derniers ko Moussa Ndoye yi xëy xam nga ni mu demee quoi. lan nga wax waa Yaram Events. waaw waa Yaram Art moom damay kontaan si ñoom di leen ñaanal jàmm grand Idi ak Lat Diop ak Bakary ak xam ñoom ñëpp di leen wax ne tamit bis bi lañ ci bëgg. ñoom ñoo ko xam yàlla na ko yàlla defal te tamit ñuy gën a santaat yàlla di gën a santaat yàlla ci tamit ne làmb moom lépp loo ci dal danga koy sante yàlla quoi xam ne defeta fi nekk ak victoire tey mën nga am ay victoire yu bëri doo ko fekkee mën nga am ay defet fekkee ko ba toog di ko waxtaanee tey boo xoolee Papa Yade mi ñu tuddee suñu drapeau ñun defaluñ yàlla lu yàlla jëlee ko fi bàyyi ñu fi tey boo xoolee moo ñu gën a baax palmarès ñun ñaar ñi ñuy bëgg combat am yëpp mbër bu amul défaite bëri sept combat xam huit tey fekkee woo ko yow nga toog fi bañ jël drapeau am di la ko tuddee xam nga loolu da nga koy da ngay yëgam fameem di ko ñaanal yàlla defal ko tamit fi mu nekk gën ko fi jóge di ñaanal tamit yaayam am xol bu mu ko muñee quoi xam nga neexul na nga am doom bu ndaw boo xamante ne si sa yaakaar la xam nga mu dem bay bëgg sotti yàlla moom ko loolu day fa métti mais dañ ciy wax ne rek dañ koy ñaanal yàlla yëgëm ko xare ko àjjana jéggal ko waa ñun tamit ñi jublu ci drapeau am ñu xool lépp lu xam lu rafet la muy man muy caatu fooraa lu rafet la ñu koy def di ko dund te xam ne àdduna yàggul quoi xam nga di ñaan nag yàlla mi yor ndam yàlla na ma jox ndam bi quoi. xam nga mais damay woote rek damay woo sama mbokk soose yi. man di nga bel ngal kontoon la ngal jaay la. al di maa jikandoo. alin sa duwaala alin sa sa duwaala. gam xam nga man di narin Saañang Burfut Faraba Serekunda Tuubaakuta Ñombaato Bani Bambako man di nga ko mu mbir daaw daal ngeen kontoon la ngal jaay la di woo nag waa France yëpp. xam ci combat bi diaspora daal maa ngi woo ñëpp ku si mel ni tey jii nii Tafa bu maa ngi koy woo seeni Ndiaye. Mm. Alsaan Ndiaye xam nga ñoom Kader Fall. Serigne Ndiour Baye Cheikh ak sama benn boy bu nekk Amérique Mansour États-Unis maa ngi lay woo ci combat bu baax a baax Mansour. Mm. ñoom ñoom Fallou Tanzanie. ku ma limul rek dama juum aboo Mansa xam nga di woo ñëpp Assane baay Fall sama mag xam di woo ñoom Diarra Ndiaye xam nga ñoom màgget Diouf. sama koñ ñoom Binta Faye maa ngi woo ñëpp xale jigéen ñëpp di wax ne ma ñëpp ñëw ma limul daal dama juum quoi ñu xam ne xam nga nit matul waaw di woo ñëpp ci combat bi quoi waa Casablanca maa ñoom bu a baax xam nga da baax fitness GP moom tamit di ko woo bu baax a baax di woo daal xam nga diaspora bi yëpp diaspora bi njóogu laax yow ma ñëpp ñoom daam xadafi Mambay xam nga ñoom Babacar ñoom ñëpp maa leen woo ci combat bi di wax na ñëw jàpp ci ñoom mandiaye xam nga ñoom juuse maa ngi wow boo yëpp ci combat bi nañ si gars yi ñëw jàpp te xam ne combat bi dama ko soxla quoi dama ko soxla dama bëgg booy si diaspora bi yëpp ñoo jàpp ci xam nga Adama jagbaatu Seyni Ndiaye g di ko wootam ci kombaa bi xam nga di woo ñëpp daal di wax na ma ñëpp jàppale quoi waaw di bëggee daal xam nga su ma euh, Sa Touba Sa maa lay woo ci combat bi maa lay woo ci combat bi suma grand nga suma papa nga suma lépp nga gis naa nag ni nga ci sonnee nii waaw maa lay woo ci combat bi bu baax a baax Sa Touba këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee ne na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje dóor na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi